yow sa bopp bi am na lu si nekk quoi. man bu ñëw rek. Pape Malick maa koy gérer Pape Malick. xoolal Moussa man maa koy gérer continuer soxna Kumba ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax. Euh, au passage ñu ngi koy nuyu. ñu ngi koy def mention spéciale pour euh, jaayante bi mu jaayante fighting bi mu def. Mm-hmm. ba mu waral tey ñu ñu ko ak ak ban encore. Africa. à les femmes je suppose. ok à merci travers Kumba voilà merci beaucoup yàlla na yàlla guddal sa fan. ñu ko ñaanal aywa donc voilà. Mm-hmm. Euh, ak Africa. Africa benn euh, bu ma def la. moo mm-hmm. xamante ne ñun tey dañu war a jóge ci nelaw yi ñuy nelaw xaate yeewu. Mm-hmm. lépp dañ ñu koy defal. lépp lépp dañ ñu koy lépp dañ koy jégaane jégaane ji. tey boo amee sax lu fi feeñ par exemple pétrole yi ngay gis wala yu mel noonu sax da ngay dem wuti ji ko. nga nga nga soog ko fi mun a kii te ñun. dañu dañu tardeel suñu bopp ci lu bari tamit. fu ñu hmm. nekk ci débat la ñu nekk. xam nga ñu ngi ci caani ñu ngi ci ñu ngi ci aaw ak ñaareel ñu ngi ci nangam nangam xam nga boo duggee ci sifeer yi kaar yi lépp coow la lépp wax la. Hmm. xam nga émission yi lépp wax la balaa moo neex sax ñu tàngal. xam nga politique rek nag. lépp. Hmm. benn actualité mooy ñëw ñu ñëpp ñu nekk ci. mel ni ay wen yoo sax ni mango quoi xam nga ñu ne ci pulum kulum maanaam ñun dañuy dañu tardé. te tey boo seetee. Euh, li tax ñu woy af euh, woy boobu noonu Afrique Africa boobu noonu pour que nit ñi ñu xool tey ci àddina bi fu mu toll xam nga tey ñu ngi wax euh, guerru Israël entre Israël ak Iran hmm. xoolal fi gars yi xoolal fi gars yi toll tey ñu ngi ci leneen passé nañu affaire de développement ñu ngi ci leneen hmm. mais ñun xoolal ñun ñun tey foofu fii la ci lañ toll ñun ñu ngi wax waxi développement mais ñun bay léegi bàyyiwuñu suñu bopp pour ñu mën a développer donc loolu moo waral ñu woy Africa. bu ñu jógee ci Africa aussi euh, ñu woy euh, ñu woy euh, feebar feebar li man dama doon dox ak samay tànk. ok dara dalu ma woon bon mais dem naa benn moment mu am feebar bu metti bu ma bu ma songu. Hmm. yàq samay loxo yàq samay tànk voilà xam nga tëral ma ci hôpital yi xam nga ci ak ci ci ci at yu yàgg. Hmm. donc voilà xam nga nekk nekk principal Dantec jóge foofu dem régional bu Thiès xam nga nii man ak paa bi quoi ñu sonnoon lool amoon ay kii yu tar. léegi hmm. nag euh, li nga xamante ni moom moo ma ci déranger ba ma woy ko mooy que euh, gars yi ni ñu lay accueillir ñoom euh, docteurs yi ñoom ñi nga hmm. xamante ni ñoom ñoo la war a dimbali. personnel médical voilà merci ñoom ñoo loo ñoom ñoo ñu ñoom ñoo ñu tàngal quoi ba ñu woy ko. donc ñu ciy ñaxtu. ci son boobu dañ ko jouer comme slam. waaw dañ ko joué comme slam son boobu noonu. déjà clip am na solo. Mhm. am na solo def lu am solo. non loolu am na solo def ma solo. ah loolu Pa Malick bàyyi sama kii mu continuer développer thème yi. loolu am na solo sama gars la. am am na solo li nga wax nii. c'est très important. Mm-hmm. parce que c'est la conscientisation. si musique rap am na y a ça par ñoo xamante ne dañu nekkul ci yoon ku soo am nekk personnel yu nekk si hôpital. Mm-hmm. nga wax. pour ñu nit yi bàyyi si xel. Mm-hmm. wala wala ñoo xamante ne dañu feebar amuñu woon confiance nga fexe ba ñu fexe euh, ba ñu gën a retrouver wu confiance. wala ñoo xam ñu ngi ci ay difficultés ba nga way way ba ñu ñoom ñu génn ci yi. mel noonu loolu moom la soxal musique rap mais soo nekkee par exemple di woy des copains wala si ñi nga xamante ne ñoom ngay ñoom say ñi nga xam ñoom ngay fréquenté loolu pour. Kumba daal wéy na ko te loolu lu ma la am na am loo xam ne wax nga ko. loo man dama. ah waaw allez yi ñu terminé son yi rek. yi déjà wax nañu. thème yi quoi euh, beneen bi Africa wax nañ ko Serigne Fallou moom mi nga xamante ni tey euh, bon yàlla daf ñu dimbali euh, ba ba ba mu feeñu ci ci ay gént bon depuis amaguñu soxna mu am lu mu lu ñu gis ci moom te tey bu ñu bàyyee lu bëri man mën naa ne moom euh, bokk na ci waaw xam nga ñun ay booyu Pikine lañ booyu Gunaas lañu donc dañoo jógee foofu rek dem Malika ay hmm. euh, maanaam taataa inondation yi ñoom ñoo ñu yóbbu Malika. d'accord waaw mais ñun. waaw dafa am lu ñu doon dund. quoi donc le coté religieux l'apport des de nos guides religieux yal na leen fi yàlla bàyyi. Euh,